yéen yéen a defoon seen devis devis bi mënut ñu ta daté le 31 mars mais moo gis ci sa yàlla tuddee lay fajoo ndax jaam day am yéeneem yàlla mooy dogal ajuma ji passé lañ am temps de travail euh, bii passé nii il faut ay treize heures avant jumaa ji monsieur le nag maa ngi dem Nioro te comme dañ tombé semaine de la le 8 mars ñuy jëm nawet jot nañu wax ci taxu jigéen may dem dama imprimé woon kii bi li ma yónnee woon dëgg mun ma ana dëgg ma jëlee dëgg mu nekk sept millions quarante et un mille deux cent francs moo nekk ci dëgg bi mun ma waaw lii bon nañ nañ ci financé à hauteur du montant bi ñu def ci dëgg bi donc indi naa leen sept millions cinquante mille bon li ngeen laaj li ngeen laajoon am na vraiment mu sawar ci trop xaaral bàyyi ne ba may dem dans ce kii nii ñeent ñeent xool ñeent xool li mu ci dolli mooy dama leen di conseiller parce travaux boo ko commencé xiir am na foo xam ne bu fa tolloo te xaalis mën na jeex te doo battali te loo gis dafa am priorité parce que dégg naa ne fii amul toilette te fépp waaye di xëy di dem toilette moom mooy priorité des nañ def la priorité des priorités gis naa fii gis naa toiture bi gis naa salle bi gisuma gii gis na je ne suis pas un technicien peut-être après man sax mën naa la boole ay technicien ñu xoolal devis bi xool la priorité par exemple fii salle bi su augmenté mu avancé tuuti mën na dina yaatu am toilette ci biir le reste dañuy di defaraat mur bi defaraat toiture bi lu ñu def ñi xam ne def ah lu mooy sama ji gis man waaw

moom tam mu am soxla ñun ñu am soxla ñun tam mën nañu wax suñu soxla suñu soxla mooy mu ñuy def ba Amadou Ba falu président te loolu ñun mooy siin ndam mooy siin njëriñ ëllëg ndax Amadou Ba dafa am fu mu jaar ak Modou Moustapha Ba te ñi am yaakaar ne bu Amadou Ba faloo président moom itam dina am cër bi bi yow ñaan nag vraiment du ay ngeen jàpp ci surtout nag ngeen jàpp ci njaboot ji mu mm-hmm. ñu nii njaboot ji moo ñu jaxal mm-hmm. ndax xale yi mm-hmm. xale yi amuñ gis-gis seen bët bët lañ gis il faut ñu wax ak ñoom conseillé su ñu nii moom tu nekk tu nekk yaay xool sa bopp xam ne sa avenir day joué sa avenir njaboot day joué waaw loolu daal vraiment loolu moom lu ci sama point de vue la man waaw. xam naa ne lii tey sotti ñu sante ko suñu borom bi subhanahu wa moom dogal rek la am mais xam naa ne man nga xam ne dama ko xaw a sonal ci dossier yi moo xam dossier ay malaat la ñoo xam ne seen yaram dafa sutante ñu tollu diggante ma jël seeni dossier jox ko moo xam dossier wu ku doomam Euh, nekk ci xat-xat wala ci wàllu liggéey xëyu ndaw yi moo xam dossier yu mel ni bii la moo xam même dossier yi nga xam ne euh, ay groupement yoo xam ne suñu mouvement bi dañu commencé di leen financer mu am mu am ci pàcc bu bari yoo xam ne jot nañ leen a jox financement mu am yu des yooyu yëpp ni ma ko ciy sonnalee sonnalee chaque fois bu bu may expliquer di ma leeralal bii daf ko daan tudd sàkkum jigéen bi ne bokk na ci li ma gën a yitteel waaw ndax biñ ko déposé léegi léegi mu mat un an occasion bu ma am fàttalil ko ministre bi donc kon tey bu bu sottee man mën naa seede ne xar na ci tànku tubéyam waaw comme ni mu koy defee ci yenn dossiers yu bari yàlla mi ñu tim xam na ne du lépp lañ mën a wax. donc sant yàlla euh, kon loolu daal moom laa bëggoon a indi ci seede. bu wane ne rek ni ko monsieur Kane waxee euh, yàlla mooy sottal. mais kenn du ko di soxla te defu ci ay jew du ko fàtte. monsieur le maire li nga wax deug la parce que ñun ñi dënd ak mom mën nañ ci cédé né bu fekkone lepp li nga xamné mu koy diligenté auprès du ministre mohamed mustapha Ba chaque jour dañ doon woote ndaje bu melni kon fi kenn bu nek ci lañuy dëkk mais mom mën nañ wax né c'est la grande muette manam leppam ci souffle kenn du yëp waye li Adama wax lay deug rek ne fekkone lu mu jëlee si loxo moom lu mu saaba jëmale ko si askanu Nioro rek ñu ootee lu mel nii bët bu set ñu woote ko ñun ñu ko jege xam nañ ko parce que ñoo koy doxal yónnent yi ak yenn service yi donc ñu ngi la ci sant di la ci gërëm si promptitude yooyu noonu leen li ma ci yokk rek mooy lu ay di njàmbat yaa ko wax yettaale boobaale bi effectivement li ngeen di wax li ma ci yokk rek mooy le Sénégal toll na foo xam ne on a besoin d'une cohésion sociale lu tàppewaat xol yi lu jubalawaat nit ñi ak institution yi lu ubbi ay yoon xàll yu bees yi ko aadama waxee te loolu nit ku flexible moo ko mën nit ku am kilifa parce que ku compréhensible amul ba ko xam-xam ne ku am kilifa la parce que topp na si ginnaaw kilifam ba tey li ko li koy waaj a dal di ko waaj a dal ñu koy waaj a président de la république kooku kon yaakaar am na si moom ba pare ak confiance bi mu am si suñu nit muy Mouhamadou Moustapha Ba loolu rek doy na pour que ñun ñëpp ñu war a mobiliser wu ne mel ni benn say pour ça

donc euh, madame la présidente euh, PCA bi ñu jox la kàddu gi. kon ñu ngi sant li ñu leen di sant bu baax di leen jaajëfal suñu sant nag ñu ngi koy gën a delloo monsieur le ab lay Ba ci tànk bi nga xam ne moo ay nitam jàppale nañ ko Saxum Jigéen parce que lii du tey rek Saxum Jigéen dafa yàgg sonn bañ amee agrément ak léegi war a liggéey def na 17 ans. banque bi ñoo maire Yata bi muy nekk député lañ jëloon ay groupement groupement bu nekk def téeméer téeméer ba mu mat ay cinquante mille cent mille si lañ defaree banque bi tey boobu ba léegi fu nekk nag jooytu nañ fa pour ñu defaral ñu suñ banque bi def nañ fi ñaari assemblée général gannaaw bu mu nekkee PCA man def naa fi ñaari assemblée général pour yëgal ko autorité yi ñu dimbale ñu si banque bi ndax dañ fi am ay gan yoo xam dañuy ñëw supervision war ñu jox financement 100 millions mais bu ñu ñëwee condition bi banque bi nekk dañuy dem jox ñu 50. parce que lii mënoo fi recevoir ay gan ñu jël 100 millions de ko dugal fii ñu ne lu siy pexe ñu ne lañ leen def assemblée générale 2017 ñu def assemblée générale ñàkk ci lu mot 500000 700000 kere dañ perte dañ jël si xaalisi banque bi am luñ ko fay amul responsable politique bu nekkul fi Nioro li may wax ñu ngi may dégg jox nañ la lettre de soutien pour buñ paré ñun ñu am toilette duñ defar fi. affaire bi sottiwu ñu defaat benen assemblée générale daw. amul autorité buñ joxul lettre fi soutien si ay maire ak adjoint yi maire ak département bi ba si conseil départemental dem nañ joxé ko lettre bañ paré dañu perte ñu ne waa lu ciy pexe muy daaw ñu ne léegi nañ sol suñu dàll dem jéem a gis ministre bi pour mu jàppale ñu ci banque bi ba ñu xamee ne gisi bu yombul ñu gis monsieur le maire wax ko ko mun ñu waxtaan na seeg ministre bi nee na nañ ko defal début depuis daaw ñu def début bi yóbbu toog di xaar ñun tamit nag ñu ànd ak dal lool. xam ne mënoon nañoo wax Ablaye ba ne nekkoo ministre bi ay jigéenu Saxum jigéen nee neen na leen recevoir dañu am suñu doléance parce que mu ngi recevoir ay góor te jigéen ñi Saxum jigéen demuñu fa jigéen ñun góor jigéen ñi dem si turu Saxum jigéen demaguñ fa moom wax na ko fii te pourtant jigéen góor ñi ñuy doon jox ñoo ñoo ñun jigéen ñoo leen gën a sonn te Saxum jigéen dafay def développement fii si département Nioro boo demee wàkk nguuna am nañ fa GIE ak ay groupement de femmes ñu mat ay téeméeri jigéen nga dem Daaru Salaam am nañ fa ay groupement nga dem Kër ma jëbal am nañ fa ay groupement nga dem Daaru Salaam village am nañ fa nga dem Paos am nañ fa dafa couvrir département bi kon Saxum Jigéen doonu lu ndaw loolu ñu koy wax ministre bi te ñii ñun fawuñ fa foluwuñ loolu moom xam na ko ndax Olof Njaay nee na bala ngay xam sa waay nga dem ba këram mais boo gisee ñii seen banque bi nuñ ko defar xaar financement yi ñuy jot ñun doonul pour defaree ko banque bi parce que lañ lay jox cinquante millions soixante millions laaj la intérêt nga war a fay say caissière say gestionnaire war a fay say gardien war a fay sa courant fay sa ndox kooku joxuñu xaalis pour ñu si defar banque bi. te da ngay fayaat financement bi. amaguñ financement boo xam ne ñun dañ ñu koo may te loolu bëgg nañ monsieur le maire nga wax ko ministre bi. dafa war war a may jigéen ñooru financement boo xam ne daf koy dugal ci banque bi ñu siy liggéey loolu amuñu ko ñii daw nañ ba sonn ay jàmbarle lañ bi ma siy teg mooy dañuy gërëm monsieur le maire Mamadou Moustapha Ba ministre nga waxal ñu ko ko ndax lii mu ñu defal doonul du ndaw ndax li muy def ñooro dañ ko ciy sant barki démb médecin yi ñëw nañ ñi war a faju yëpp dem nañ faju ki démboo njaay don yi ñun gis nañ ko ñi ko war a jot jot nañ ko préfet def na dama ko war a defee ñu ngi ko ci gërëm di ko sant koor gi ñëwagul mu ne bu ret ne damay njëkkalante li ma war a def balaa koor gi loolu mooy bëgg sa dëkk ñu ko ci gërëm bu baax di ko sant gërëm département Nioro nag si saxum jigéen parce que benn loxo mooy takk tubéy mais ñaari loxo tamit mooy takk sër ñii am nañ fi gan dama ñëw toog gan gi ne ñii li ñuy fayeeku dafa tuuti ñoom ñi ñu doylu lool ne ko ñun li ñuy fayeeku buñ ko yokkee suñ banque bi du avancé kon bàyyi ñu fañ nekkoon waa ji ne ko oo leen ma PCA ma ñoo toog ma mu ñii dañ war am salaire bu baax ma ne ko dégg naa ko te incha allah am nañ ministre de finance boo xam ne bu ñu jàppalee pour suñ banque bi ñu am lañ ko defaree rek ñun man ma man ma signé seen salaire ñu yokk ko amu si problème parce que ni loo ko añaanee dara ndax ñoom mérito nañ ko monsieur le maire yi xam ne ne Saxum Jigéen doonu lu ndaw parce que dem nañ séminaire sali maa moom ñu toog banque yi gën a liggéey si région Kaolack bii daf ci bokk boo gisee li ñu dese woon rek mooy ministre bi manqué empreinte am si si sàqum jigéen loo toxoon ñu sonn parce que lii wane na ne dugal na fi dara te bàyyeeguñ ko war na fi dugal ay yeneen financement ñu ñu mën a continuer suñu liggéey kon nag nañ leen nañ jàppale département Nioro jàppale sàqum jigéen ndax groupement yoo xam ne tey daf leen di financer yu ay téeméeri groupement yu nekk ci département bi financer leen ñu liggéey loolu moom war loolu lañ bëgg ministre bi duñu si gën a jàppale di gërëm di sant di gën a ñaan tamit suñ càmmiñ ji yàlla doolu ko fee yàggal ak wér ndax olof Njaay nee na yuuxu dangay enale sa gémmiñ fañ lay walloo ndax ne naa la lii am nañ fi ay gan ñu waroon ñu indi financement cent million mais dañ ko wàññi parce que fu amul sécurité gis placement bi ni mu mel doo jël sa xaalis di ko fa dugal mais bam solee dàllam jóg ñu ànd ak tekk ak tey di ko déglu dañ ko ne ñun dem Dakar jaru ko yaay suñu dàll soo demee rek mel na ni jigéen ñi sax comme jigéen ñëpp dem nañ parce que li ñu soxla mooy boo ñëwee yow da ñu wax ni ministre bi nee na leen am mu ngi nii kon jaroon ñuy dem xam nga lii wax nañ la ko kon nag ndox ba nga xamee suñu soxla taxaw si tamit ba yàlla def lii ñu indi ko fi. lay féliciter di la encourager ak sa équipe yëpp di ci kontaan bu baax parce que PCA ñun xam nañ li mu représenté si structure te li mu fi wax loolu la ñu ay satisfaits yi. donc wax dëgg yàlla kontaan na si équipe bi donc loolu moom dafa war a nekk fierté tous les membres de la structure rawatina nag gérante bi fi nekk ak ñi koy dimbale mais aussi comité de crédit bi ak comité de surveillance donc yooyu yëpp ñoom ñoo ko ŋànk donc lépp ñëpp la lu ne ku ne la donc xam ngeen ko moo tax ngeen jàpp ci ba am ci loolu donc ñu ngi leen ci félicité di leen ci encouragé li wala wax nag li duuf si nag bi xajul ci cin li fii ku nekk am nga ci loo ci mun a wax ku dëkk ci département bi gis na sa jëf ci Nioro ku ko wax ak ku ko waxut bi yàlla defee tey lii def ñu bari la naqade ndax ku xam dafa ñëw rek dugg bëgg boppam bëgg dëkkam bëgg réewam. man la Fat gérante de la mutuelle saxum jigéen bu di waaw ñun de ni ñuy liggéeyee mooy ñun mutuelle de crédit lañ. boo déggee ñu ne épargne crédit mooy di denc di leble loolu moo suñu liggéey ci loolu la ñu nekk comme moom la ñu def comme activité chaque jour. waaw nit ñi dañuy ñëw ku bëgg ñëw adhéré bala ngay am bala nga fi mën a épargner wala nga am fi crédit da ngay ñëw def adhésion ba pare mu ngi fi adhéré avec 6500 bu dee individuel bu dee groupement mu ngi adhéré avec 16500 soo xasee ba ñëw adhéré nag am nga fi carnet soo amee xaalis boo ñëwee ñu dencal la. soo bëggee leb itam boo defee demande suñ ko comité de crédit signé ñu lebal la noonu la la ñuy déggee denc bi aussi saa yoo dencee même soo dencoon léegi cinq minutes après nga dëpp des joxaat leen ñu jox la noonu daal mooy suñ liggéey fii.